ministère de l'éducation nationale di wax li jëm ci wàllu daara ji kaw gi maanaam nekkinu étudiants yi dinaa ci def sama kem kattan ndax li nga xamante ne moo di seeni bourse yi ñu fexe ba am liñ ci mën a def ba li nga xamante ne seen condition mu gën a ñoŋ li jëm itamit ci wàllu dara ji kawe gi maanaam acteurs yi ñu ko ŋànk ci wàllu recherche ñoom tamit war nañu leen taxaw ndax ñoom am nañu taxawaay bi nga xamante ne buñ ko taxawee rekk njàng mi dana gën pour que le système académique sénégalais